Mbosi Ndiaye de ben citoyenne la sénégalaise euh, juddoo si dëkk bi jàngé ci dëkk bi primaire, fi primaire amé sama bac lycée Limamoulaye bi ma paré ma intégré université de Dakar ma def ay études en physique et chimie bi ma sama maîtrise ma dem à jàngalé depuis 96 euh, j'ai enseigné jàngalé na pendant 22 ans bi ma pendant 22 ans après je me suis dit non ça ça devient monotone j'ai plus rien à prouver de lois de faculté ma tenté ma chance j'ai ma def la thèse je me suis inscrite en thèse en trois ans j'ai soutenu ma thèse et après la thèse j'ai été recrutée à l'UFSF e de Saint-Louis de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et bon par pur hasard j'ai atterri bon à l'ISEP voilà <laughs> ISEP Institut d'enseignement supérieur professionnel Dina vais expliquer d'ailleurs l'année moo nous ñu ISEP tu sais en 2013 xam nga président wàllum jeunes yi daf ko mës a préoccupé emploi jeune ak femmes yi dañ ko mës a préoccupé te dafa constaté que ne boo demee dans les universités da ngay gis xale dañuy jàng ba am ay DEA ñuy ay des fois da ngay am sa doctorat sax mais pour nga am liggéey moo doon problème donc ça c'était une question léegi nag euh, le président s'est dit et puis il est conscient que gis nga nit mënoo wax émergence dëkk te amoo ressources humaines qualifi nit ñu qualifié personnel bu qualifié boo ko amul sa dëkk mënul émerger léegi ci loolu la ne xaaral ce qu'on va faire mu demander en 2013 au ministère de l'enseignement supérieur bi fi nekkoon mu ne ko da ngay organiser ay waxtaan xool avenir enseignement supérieur pour xool naka la ñu war a def ak formation yi léegi nag le ministre au avait convoqué ñépp daal bi ñu ñëwee ñu discuter ci biir discussion yi am ay recommandations yu ñu bëri ñu génne 78 léegi nag am 11 yoo xam systématiquement dañ ko même avant loolu sax président même pas 5 mois après les concertations dafa organiser le premier conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur léegi faut ñu foofu ñu 11 décisions yoo xam systématiquement dañ ko waroon a exécuter ci 11 yooyu ñu deux yi ci gënoon am importance mooy c'était de jëlee enseignement supérieur système bi ñu changé ko carrément yóbbu ko ci enseignement professionnel benen bi moy def ay ISEP ISEP c'est-à-dire que def ay école de formation yo xamné les dañuy former rapidement dans la technicité rapidité et innovation bu ko defee xalé yi bu ñu génnee rek dañuy daal di a dem am liggéey bu ko problème employabilité ci réglé wu mm-hmm. donc c'est dans ce contexte là ci la ISEP yi donc té ISEP bu nekk bu koy def fay xool région bu nek biñu wara implanter parce que actuellement fa né mom objectif am c'est de moy def région bu nek mu def fa ben ISEP mais fa né buy def ISEP fay xol dëkk ba région ba mu koy def lañu soxla population ba ci nek bu ma ko fa defee ndax ñu gis war nañ ci gis sen bop dëkk ba ñom ñi fa nek ñep ak économiquement vraiment ISEP bi nit ñi da fa wara nek en accord ak la nek ci région ba donc ci nonu la créer actuellement il y a six ISEP qui cinq ISEP qui sont fonctionnels Il y boo xam ne ñu ngi ko nommé nañ coordonnateur bi mooy bu mais commencé guñu mais ñun par exemple ISEP de Diamniadio par exemple nous ñun dañuy former si métier automobile ak métier affaire numérique technologie information de l'information et de la communication léegi yooyu bu dee automobile bi dañuy def ay mécanique ay comme mécaniciens yi ngay gis ni ay électricité parce que ci mécaniciens yi am na ay électriciens am na ay tôliers am na ay carrossiers ainsi de suite ci kii yi aussi euh, nu mu ci TIC bi aussi foofu tamit am nañ ay filières six filières mooy yi ma cité woon sànq rek waaw léegi bon et lu gën a innovant ci formation bi mooy et lu koy uutale ak yeneen formation yi amoon mooy fii nii boo ñëwee rek xale bi bu ñëwee rek dañ koy dugal dans le métier xam nga nit ki pour mu mun a engagé wu bëgg li muy def il faut mu xam li muy def lan la boo ko dugalee dans le métier mu def mu def loolu la ñuy wax immersion bu demee foofu day toog xool entreprise ci entreprise nga ko yóbbu mu dem xool ni ñuy liggéey seen comportement yi commencé laal benn yoon ñaari yoon nga gis mu commencé habitué là il commence à aimer le métier bu boobaa nag soo su ñëwaatee soo ko laajee daf la naan waaw man bëgg naa léegi nag ñu jël leen nag orienté leen ci filière yi bu ko defee nag après ñu commencé def cours yi def enseignement yi enseignement yi nak buñu défé enseignement une partie lu gëna a bëri dañuy wat ci entreprise bi parce que aussi modèle enseignement, modèle ISEP bi mo démé noonu dañu wax ne opérationnel immédiatement après la sortie moy nit ki bu génné ba am diplôme rek soxla wuñu diko former wat parce que li compétence yi mo wara am yépp am nako loolu mooy modèle Elsevier loolu moo tax bu xale bi ñëwee rek bu commencé cours ba mu yàgg dañ koy yóbbu entreprise mettre ko en situation réelle parce que tant que nekkul situation réelle di confronté wu ak ay difficultés di ko résoudre di am ay obstacles di leen franchir du xam lan mooy entreprise léegi nag dañ koy def ci situation boobu lañ koy def bu ko defee ñu def ko ko pendant deux ans ah et puis si ko koy def ñun ak professionnels ñoy and dañuy former professionnels aussi dañuy former ak ñoy bokk former donc lool moy def ce qui bu xalé bi génné du jar sax muy def stage bokk ko foo rek adapté parce que lool c'est très important. ñu ngi nekk ci euh, juroom ñaari témèr ak euh, ñeent fuk ak juroom ñett pour les deux promotions parce que première promotion bi dañu am témèr ak fanwer ak dans les métiers de l'automobile pour la promotion 2020. Euh, ci beneen bi ñu am 166 euh, téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn soo ñaar yooyu première promotion bi rek ñoom ñu ngi nekk si 297 c'est-à-dire ñaar téeméer ak juróom-ñeent fuk ak ñaar promotion bi ci topp bu 2021 bi boobu ñu ngi 451 parce que dañu am 199 yu nekk automobile ak 252 yu nekk dans les TIC en tout et pour tout nous avons boolee ñoom 748 jigéen ñi on voit que jigéen ñi vraiment dañu commencé di bëgg ces ces ces métiers là ndeysaan man xam nga souvent damay def bu ñu nekkee immersion sax damay jékki-jékki rek dem foofu fekk leen fa mais boo demee tu les vois en tenue dañuy solo dëj bu góor ñu dóoree ñu dóor bu ñu waay bu ñu suudee ñu suudee ils font comme les garçons donc loolu vraiment c'est quelque chose qu'il faut encourager c'est la première fois qu'on voit ça au Sénégal au Sénégal c'est la première fois qu'on voit ce genre de métier là parce que de formation professionnelle c'est pratiquement de la théorie mais du théorie bi jàngal ko wax théorie rek ko li koy jàngal touché tax mu bëgg li koy jàngal formation bi day yomb ci yow. def nañ ay garage parce que garage en réalité daf leen di permettre euh, li ñu leen di jàngal ci classe yi ñu appliqué ko ci biir garage bi bu ñu ñëwee foofu dañuy def ay teppee xam nga garage bi sax mun nga ci ne ci biir école bi la comme entreprise la mais loolu ñun doylu si ñun dañu leen di utal carrément ñu dem ci entreprise yi comme ça ñu gën a gën a xam métier bi parce que li li ñu am ci garage yi xam nga fii da am ay matériels yu bees ak yooyu boo demee ci garage bi nag yow yaa war a débrouiller wu dangay gis ay matériels yu màgget yoo xam ne da war a apporter solution rapidement te loolu dafa am importance. loolu vraiment ñun ISEP dañu gëm liggéey en groupe ñun équipe lañu gëm parce que seen enseignants yi nga gis ni ñu di leen ay enseignants yu xarañ lañu parce que qui nekk ci ñoom ingénieur nga ba pare from professionnel nga ay ingénieur yu ñu jëlee ñi ay ay ESP euh, e ñi ay fële bu Thiès bi ak yooyu xam nga donc ñu am nañu def ay 3FPT et tout mais c'est des professionnels qui vraiment sont dans le métier par exemple bu dee automobile c'est des gens qui sont dans les métiers de l'automobile automobile il y a aussi des professionnels qui ont une am entreprise qui ont une ci formation aussi et c'est ça qui fait le charme en fait de la formation. défi yi le hein, actuellement notre suñu objectif n'est pas de former 700 ay 500 ou di gagner 200 par 2 ans non notre objectif c'est de former par 2 ans mu 2000 apprenants ou mu gagner 2500 wala 3000 nous défi boobu te d'ailleurs dama profite profiter di woo entreprise parce que gis nga entreprise entreprises, ñun ak ñom ñoo mëna bok défar suñu entoura entourage écosystème bo xamné permettre formation bi gëna yomb fofu parce que ci biir écosystème bi day am ce qu'on appelle les CAPS centre de production et de prestation de services entreprise dañuy indi dañuy délocaliser ces services yi ñun nous avons les ressources humaines moy suñu apprenants ñom suñu indé xale yi ñëw ñu for ci formation bi la bokk ñu kii voilà former leen rapidement. ah beneen défi bi nag mooy voilà mooy la publicité def en sorte que ça soit vraiment bien visible que nit ñëpp xam ko et vraiment man daal lu may wax daal balaa suñu défi principal ñu mooy ñu dem ba. gis nga bu ñu amee suñu écosystème yooyu ñu pérenniser vraiment alternance bi mën a ko gën a dëgëral ba pare xale yi aussi di gën di ñëw ñuy formé ba ay 2000 3000 parce que man dama gëm suñu système d'enseignement bi ñu am c'est démodé c'est depuis c'est du temps des colons il est temps que ñu xalaat loo xam ne daf ñuy permettre rapidement ñu répondre à cette question là de l'employabilité mooy def ay formation courte rapidement yu gaaw deux ans nga formé xale bi mu dem te loolu sax mën nañ ko commencer dès que xale bi am BFM. seconde rek ñu orienté ko mu dem dans les métiers bu ko defee bu defee foofu deux ans trois ans mu dem liggéey mën na liggéey pendant cinq ans après bu amee xaalisam mën na inscrire continuer jàngam loolu c'est plus rentable ba pare xale yi seen parents yi dañuy dépendre ci ñoom pour man loolu ce sera une façon même de régler le problème non seulement de l'employabilité mais aussi d'apporter une aide à, à ces familles waaw vraiment xam nga man président moom sama président la kontaan dama kontaan nag vraiment te bu ma sañoon gis nga fu mu nekk ñun depuis biñ ko ba ay 22h la ñuy ci bi 17 dafa doon yi seen ñoo a ils sont tellement enthousiastes de recevoir leur président man daal dama ne daal ñu koy teeru daal te dinañ def suñu kemtalaayu kàttan ba mu xam ne que ne ñun on ñu daal dañuy